le cas du parking bi ñu dindi fii. waaw Cheikh Thiam. Cheikh Thiam. mais waa ji man lu tax xaw ma ko yéen. am naa Cheikh Thiam bu baax. ñu bëri gars yëpp man ku ma wax. non dañ ne ngeen jaar ci tur beeg. non dama non man dama doon daje ak. la liggéey naa ak moom xamul ku ko ah. daje ak moom. Ah. benn góor yàlla bu ñuy wax El Hadj Ousmane Niang. Mm-hmm. dëkk Ngeet ca Daara Jolof. Mm-hmm. ëpp na dix ans ci ginnaaw wala quinze ans. Mm-hmm. kon xam naa ko. dafa am ay rumeurs circulé ñu ne préfet parce que guerre la ndax passé nga bokk. Mhm. c'est pas vrai. Mhm. Arrêtez de baa ngi mhm. li nga pour mu mu parce que place place jàmbur la. ci miiru école japon bi. dañ euh, il m'a été donné de constater de constater que vous occupez mhm. sans titre ni droit des espaces jetant le centre de formation technique Sénégal-Japon mhm. à travers des parkings de vente de véhicules d'occasion mhm. ou autres. Je signale que ces, espaces abritent divers réseaux, notamment le réseau d'évacuation des eaux de ruissellement cette situation empêche les, opérat les opérations d'entretien mhm. et de... Et de l'autre. On a, compris. on a compris. Et de réparation. On a compris le message. Et euh, euh. dit réseau. Ouais. Seulement, il faut les routes. Parce que téléphone là, on a compris le message. Ouais. Maintenant, il faut que le parking bi fan année. Mhm. Ak secteur bobu yep. Mhm. Dafa am ben canal bo amna ay rue seulement ruissellement la. Ndax ku dugg foire gis fa canal foire bi. loolu moo ko jëlee foofu. donc y' a manipulation. manipulation bu rëy ñu naan bu ñu demee ba ne parce que Pastef la bokk. moo tax ñu jëlee ko fa. du moom rek lañ fa toxal ah. am na benn kanking orange moo ne bu ne ci wetu impôt domaine bi boo ñëwee ba en face impôt domaine bu foire am na ay restaurant yu fa nekkoon jëlee nañ leen fa. Ah. soo ko continuer ba jëm nord foire am na fa ay kii yu fa nekk yoo xam ne toxal nañ leen fa. Mhm. ñoom ñëpp dañoo jot sommation. mu ngi mel ni comme tali bi ñu nekk nii en face seen TV exclusif bi. waaw boo ko seetloo. waaw li fi nekkoon yëpp toxal nan ko. set na wi ci waay. lépp toxal nañ ko. te ku ci nekk da ngaa jot sommation. Mhm. donc préfet bu fekkee ne dañoo yëndee foofu ay këyit. pour ñu jëlee ko fa ce qui n'a rien à voir avec Pastef. Mhm. et même si il est de pastif ou il n'est pas de pastif là c'est pas le problème. Mhm. bu fekkente ne moom fa mu nekk du titre foncier. bu fekkente ne fa mu nekk dañ jàpp ne. Euh, yoon da koo sol pour liggéey ci. Mm-hmm. mais buñ ko fa jëlee lu ci yoonu Pastef lu ci dugal politique lu ci dugal manipulation bañ naan dañ ko ne non parce que Pastef nga bëgg leen dañ koy daaneel <laughs> il faut qu'on arrête de manipuler les Sénégalais on a compris tout ça pour pousser les gens à se rebeller d'accord et je salue très bien cher Thiam dama koy nuyu bu baax nit ku baax la nit ko am yërmande nit ko am tawfe nit ku nite et je le connais très bien très bien alors ñanu ma koo xam nag di wax loo xam ne amul très bien sur la question donc na Sénégalais yi dalal seen xel ne jotawul ak Pastef dara absolument voilà on a compris comme Aïcha par rapport uh-huh. interdiction marche bi ñu wax am na yoo xamante ne accepté nañ ko. Mhm. Serigne Saliou Gueye jaar na ci léegi. ñu salué ko. Mhm. am boo xam ne accepté wuñ ko lu ñu wax trouble à l'ordre public. oui fan la marche bi la ñu wax ne yéen koy commencé. université université. balaa ngay jóg université. ci pont école normale bi. Mhm. looy jot centre national transfusion sanguine. waaw boo ko jógee looy jot. hôpital Sonatel Orange. Mhm. soo fa jógee hôpital Fann. Mhm. soo fa jógee soo ko jógee université. Mhm. soo jógee université prolongé yaa ngi jot imprimerie de Dakar. soo fa jógee yaa ngi jot Abbas Ndaw hôpital Abbas Ndaw. nga jógee foofu ñoom ñu ne ñu ngi jeexale seen marche rond point poste Médine. nga jógee hôpital Abbas Ndaw yaa ngi jëm marché Tilène. boo jógee marché Tilène soo ko yegg. rond point. poste bi nga ne la marche Yewwi di public. lu mais vous koy mais assez d'éléments. non mais mais mais mais mais on a assez d'éléments. quand même. la marche la ma nous sommes dans un jour ouvrable. waaw waaw. nit ñi dañuy mais li ma lim yëpp centre national transfusion sanguine. ça c'est euh, euh, hôpital à Abass Ndao université. marché Tilène. Mhm. kon yooyu ñep dañuy dëj dañ leen di tere jaay dañ leen di tere liggéey dañ leen tere dox seen i activité mhm. dans une journée ouvrable ou ñoo xam ne dañuy daan seen doole. Mhm. ci loolu lañ yaaka bu seen soxla ay marchands lay fa nekk. attends il faut qu'on soit un peu. réfléchir que ne réew mi dafa am loo xamante ne ñoo xam ne moomuñu ko. buñ jàpp ne ñoom am nañ droit droit boobu ñu am ba am ne dañu bëgg ñu autorisé ñu marché foofu. Mhm. am nañu am droit ñoom de bokkuñu ci marché ba dañu am droit. Mhm. ne ñoom dañoo war a mhm. am droit de circuler. mbedd bi ñëpp bokk. donc si on dit que trouble à l'ordre public édifice sanitaire yi ma la limal rek doy na ndax ay malade yu tëdd ci ay hôpital. nga xey tay le mercredi. 8 h 9 h 10 h 15 h 17 h 19 h nga bëgg a marché. ah xam nañ marché sénégalais ni muy doxé néw na mu jéxé ci jàmm. mën na ci saay saay. mën na am lu ne non ah. moo fi am. <laughs> Mohamed aussi. non ah. ma ñëw. am na force d' encadrement. non xaaral ma ñëw. moom laa ko expliqué mais puy nangu ko ah. ba léegi puy bu leeraloon rek. trouble à l' ordre bi c'est-à-dire que cité na ay fan ak ay centre de transition mais trouble public bi. cest à est-ce que am na trouble non non non dama lay kii rek. non dama lay ma relaxé ah, <laughs> <laughs> bi euh. dama ne kon nag bu nekkul trouble à l'ordre public trouble psychologique am na ci kon dina ci am. mais dama ne dama ne nañ génne këyit ay doomi aadama kese lañ malade bi tëdd hôpital. lu mat 1000 personnes romb fa wala 500 wala 2000 personnes romb fa. bu ñu jógee point A bëgg a dem point B balaa ñu faa jógee ils prennent du temps. attendez. c'est mais trouble à l'ordre public la. dañuy waxante dëgg. am na loo xamante ne xel da koo nangu wut. université ku ne xam ne li fa ne ci ay étudiants. xam nañ ne tension bu am ci wàllu manifestation bu université génnee musiba am ndax étudiants yi fa ne. donc il faut qu'on voit les choses positivement comme mu bañ une vision euh, une vision partisane là. très bien le Sénégal actuellement faut que que commence tey am na ci secteur a des on a accepté Ils ont état accepté mais si vous avez une ba administration lañ institution ne léegi rejeté nañ demande marché parce que les motards, mais tay mais des personnes qui ont accepté, ils représentent une institution l'Assemblée mmh. nationale nous bëgguñu ko bafouer nous institution les députés du peuple Nous ñu ñëw ñu interdire nañ marché Nous jox leen motif interdire ko. ñoom député institution nationale avons défier les institution C'est seen c'est la par force non. c'est des députés du peuple. Mm. préfet leen institution wala du institution mais par respect du corps de l'institution ci bopam bi len né waru len marche mhm. ñom en tant que député du peuple d'accord waroon na ñëw baña def fi ngaan dañuy génn c'est clair et puis fi may daanale moy mhm. wa yeewi gëmuñu marche bi ñuy def yenn leader yi ne ci biir yeewi la la kon bañ koy déposer xam nañ ne duñu leen ko loolu moom sa appréciation la loolu parle au ah, nom de personne. man tout le temps que je parle ici. dama ne la quasi totalité des leaders qui sont dans Yewwi. ah mais loolu la bu ñu waxut bu sottee. Ah.

Le cri, lacrymogène grenade lacrymogène yi ñu doon euh, ci buntu PRP bi euh, la doon daw ba benn auto euh, fël ko mhm. donc mbokk ko mbokk yu métti auto bi nag dafa daw ah mhm. donc ñu ngi ñaan autorité yi ñoom itam ñu def seen kéem kàttan vraiment pour xam kan moo def ñaawteef boobu ba pare daw jamono ji mi ngi yóbbu nañ ko hôpital mais ci condition yu méttee métti donc ñu ngi koy massaw bu mhm. baax a baax a baax sunu concert boobule alors euh, Kader yow itam sa appréciation ci euh, manifestation bi nga xam ne interdire ko ci axe bi nu wax